di wax ndawu sénégalais yi que gis naa leen gis naa seen jafe-jafe dégg naa seen métit si lii kàddu la njiitu réew bu bees bi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di exprimer attention particulière bi nga xamante ne jagleel na ko xëyu ndaw ñi mu nekk mbir moo xamante ne bokk na si li ko gën a yitteel dinaa ci taxaw bu baax a baax ba lépp lu jub jàngale lépp lu jub formation lépp lu leen di jox liggéey dina doon loo xamante ni ci sama mandat bii dinaa ci am taxawaay gu mucc ayib waaye ñi ma ci mën a àndal mooy ñii nga xamante ne mooy li ñuy wax secteur privé te ñoom ñoo yore koom mi koom gi ci réew mi bu liggéey amee tamit ñoom ñoo koy joxe waaye day fekk nag mu lalu ci secteur privé boo xamante ne dafa am doole ndax réew mi daf koy jàppale état jàppale ko. moom jiitu réew bu bees bi xam bu baax jafe-jafe yi nga xamante ni askanu Sénégal mi ngi koy dund jamono ji loolu waxal mu daal di rek te dinañ taxawal ay jéego yu am solo ngir xeex di dund gu cher gi. Sénégalais yi ay jàmbaar lañ waaye sol sonn nañ moo tax ci fan yii di ñëw lépp li nga xamante ne war naa ko jël ci ay mesures bokk ko waxtaan ko ñoo xamante ne ñoo nekk ci secteur économique bi muy secteur privé muy commerçant yi muy ñeneen ñi nga xamante ne seen loxo ngi ci dinaa ko def pour ñu mën a def loo xamante ne mooy wàññi. Euh, jafe-jafe yi nga xamante ne am nañ ko ci dund gi. ngir rek saafara yi la ñaari jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ci biir réew mi président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay fas yéene na liggéey ak acteurs yépp ngir rek askan wi mën a gis seen bopp bu baax a baax.